institut royal du sud et du sud ma sinik bay ju fat yeen roi du sud man sibilu mbay jeju roi du sud sen caravane culturelle bi nga xamne nak amalon nañ ko moy tukki nemeku ngir jamm ci rew mi rawatina sa casamance bile bu ñuy woyé bay fat yeen ju and ak mbolo mu takku ñu jaar gambi dem fofa sa usuy bañu paré nak ci étape usuy bour bi ñuy woyé man sibilu jeju roi du sud mu organiser ben cérémonie bo xamne ceremoni cérémonie de tagatola la ñaan jàmm si réew mi waaye ñaan yàlla may leen ndam ñu jublu ñu ko doon amalee nag bois sacré bu roi du suy maasinig nag ñi nga xam ne ñooy ndawam ba ñu doon def démarche yi comme teraanga gim ko indil nii def ko defaat encore lu si mel ni dugub ñebbe pool lépp loo xam ne rek nit def koy jëfandikoo si dund mu nekk lu ñuy bayal suñu bopp indi na ko buuri usuy waaye ba ñu paree cérémonie bi itam seen cosaan ak aada léemu ak ñaan masinik ñoxo bàyyi juuf fat génn ànd nag ak la reine ngir ñu wuti kër buur suñu mbokk joola yi nag teeru ko ak seen cosaan ak i aada ba ñu paree xam ngeen ne Sénégal teraanga la rawatina nag ñaari xeet yi kuy wër teraanga ba yegsi si ñoom da toog muy séeréer beeg joolaa bi bi lu mbay jeeju roi de suy si la yëkkatee gile teraanga nag jox ko ne ko li yóbbaale ko sa yóbbal la xeeb naa ko lool nag ndax caravane bi nga def alal jiñ ci dépasse énergie bi dara ñorut la lu dul jàmm luñ la defalul dañ koo amut maa sinig ñoo ko bàyyi lii de nekk na loo xam ne lu rëy la si moom ndax nag teraanga bi bu na lool waaye ki nga xam ne moom moo nekkoon PDG bu ir rajo Mamadou Ibra Kane mu nekk candidat 2024 moom di yàlla may mu ñëw nekk jàmm bi nekkal fa nag suñu mbokk suñu cousin xaal pulaar yi ñëpp kontaan si am si xol bu sedd guy yi ndax teewaay bi mu teew dem na sax ba sàkku ne leen il faut nag ñu boole si debbo suñu cousin xaal pulaar yi ñoom itam mun a bokk si jàmm ji guddi cosaan ak aada nag muy cosaanu joolaa ak cosaanu séeréer wane nañ ko si guddi gi bile reportage ki leen ko doon defal Makayri Ndiaye bu séeréer rajo séeréer suusu sënt ñu basé fii si Londres di leen jox dig daje ak juróom ba jàpp jafe-jafe commune bu Diossong département bu Foundiougne ci seen 48 heures yi séeréer rajo séeréer su yéene leen gunge yile activité